surface. ah loolu nag sa mère mooy paree bés bi muy Abdoulaye Diouf Sarr waa bari lool am nga sas bu rëy auzu billahi mina sheytaani rajim bi ngay wax bismillahi rahmaani bi ma sant yàlla jilu si bi di sant samay ñaanu waajur di nuyu kilifa yi fi toog toog yëpp di sama papa mu ngi nii toog di nuyu grand ñëpp di nuyu waa Yoff di leen nuyu bu baax di nuyu sama ménagère Matar Ndiaye bu baax a Ablaye Diouf Sarr maire de Yoff la ñu tuddee bés bi. sa papa mii dina ñëw toog sa papa nag bu toogee war na am noo mel ak sama waay de. waaw bés boobu noonu xam naa li ma siy xaar. caatu ngéwél maa ko war a may confiance xeeru ngor maa ko war a may confiance caatu yof maa ko war a may confiance te si kàttanu yàlla dama koy daan. max moom ku dàq daan yàlla na ko yàlla may ndam. ay jot toqoo toqoo. caatu ngéwél kay. équipe bi face. alhamdulilah bisimilah inewaane yàlla jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma ñu sant yàlla ñu ngi sant bi di sant si ñaari waajur di sant gaay yi nga xam ne moom la ñu fekk mooy suñu mbokk champion yi waaw di gërëm Thiatou Yoff di uh, di gërëm champion yi fi nekk yëpp waaw maa ngi gërëm tamit sama supporter yi nga xam ne depuis maa ngi ñu ñoom nekk sama ginnaaw waaw maa ngi sant bu baax a baax waaw bala ma wax dara si si làmb ji nag damay nuyu ma jógee di la nuyu bu baax a baax waa Thioké Sine waa Kañabu waa ki waa Balongo ba fàttama kenn maa ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit waa Montagne waa Aslem bu ma bàyyeekoo ak waa Fass waa Sidi Bissam maa ngi bu baax baax di nuyu tamit ñu ma àndal ku ci mel ni Kara Diagne maa ngi bu baax baax ku ci mel ni Ñada Faye Ama Fayam ku ci mel ni Gaz Ama Fayam moo ma jox daal di bees sax ma sol ko ñoom si siyaasir bi maa ngi bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax. ay jërëjëf suma gars yi rendez-vous le waaw non non pare wu ah. parce que Cheikh Dieng bi Cheikh Dieng. foog ma wax ak moom ba pare. ah du ma jaar turam naa ko ay doomu yow Cheikh Dieng laa koy xam naa ko baax. xam naa bu baax. xam nga yaayam xam nga papa. xam naa ko bu baax. Ndakaaru laa juddoo Ndakaaru laa yoroon Ndakaaru laa màggee. rampe si mbapat yi. isaan moom. xëy na làmb moo demee ma nekk xale bu ndaw nar a indépendance ndax samay morom kenn nangul bëreeg man dama koy remercier si nag fit bu mu am ba jël sama avance. di ko wax ne nag jël na avance boo xam ne amul fenn fu koy yàqale ndax avance du yomb yee maa xay sant bu baax a baax waaw li ma li ma wax si loolu li ma wax si loolu noonu tey na def nànk rek Cheikh Diène laa tudd Seydou Camara la tudd bu baax a baax maamam di Moussa Camara bu baax a baax kii dama ko xam su ma ko daanee ba pare dinaa ko wax su ma ko daanee ba pare dinaa ko wax maamam bi mu jógee Casamance fi mu daloon Thiès saaka mu ngi naan montagne yoof yoof moo jur ndakaaru te man maay doomu yoof te si kàttanu yàlla dinaa ko daan merci beaucoup merci mu ne la loo ci bëgg a yokk waaw damay woo ku ci bëgg Moussa Diop amoo fa yam parce que ñu may jàppale daa bëri maa ngi woo Moussa Diop di woo wax Cheikh May bu baax di woo autorité nekk aslem yëpp Colobane Fass di woo jàpp si di woo waa man tur bale jàmm ayca waa groupe bale jàpp ayca waa groupe